bienvenue sur votre première chaîne de télé musicale du Sénégal euh, vous êtes dans votre émission agenda. émission bi nga xamante moleni si moo leen di gunge euh, bu nu ne semaine bi nga xamante si yéen passé à télé musique Sénégal lundi mardi mercredi et jeudi ngeen and ànd ak ki nga xamante ni si mooy ya Daba Mbaye di nana. nekk animatrice ci Ouais, gi waaye tamit and à qui ak ki nga xamante si Boga j'espère que vous avez passé un bon week-end ak ak ki nga Diacha euh, yaakaar naa ni gunge woon na leen euh, ci ci ci vendredi bi ak émission bi nga xamante ni si moom la indi tuddee ko lu bees waaye tamit samedi bi euh, moom it gunge na leen ci émission bi nga xamanteni si mom la tuddé concerto bu ñu né concerto nak dafa nek soirée live bo xamanteni si ci biir studio bi la ñu koy defee Diacha di leen ci gunge soit da fay and ak waykat bi wala mu ànd ak koo xamante si kenn la ci staffam ngeen waxtaan ak mom duma leen ko nettali ndax dundoon ngeen ko ak mom durant euh, weekend bi nga xamanteni si passé ngeen ko ak mom waye tamit bu leen faté chaque jour que ni programme yu yees yi nga xamanteni si mom la Télémusique Sénégal indi ñu leen ci gunge agendar bokku na ci rendez-vous bi nga xamanteni si sénégalais yi fonku nañu ko ba tous les tous les jours dañ koy xaar de 17 h Euh, ba li nga xamante ni si mooy 19h tey nag malheureusement yaadama dafa tardé woon ndax moom xam nga ni dafa bëgg fashion dafa bëgg sañse dafa bëgg mbakiyewu dafa bëgg di capp-cappal ba mu neex waaye dama koy bàyyi mu nuyoo ak sénégalais la taaka muy wane sañseem ndax xam naa ni bii sañse mu sañse tey jaroon na tardé moo tax bi mu accès dama ni ko fils neexul ba neexul mais def nga ba mu baax tey it kontaan naa ci yow yaa daba mbaay Assalamualaikum mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di jéggalu rek bu baax baax ci heure bi nga xamante da ngaa tardé ah, da ngaa tardé sañse bi la sañse <laughs> bi la tardé am problème <laughs> ma terminé ko téléspectateurs leen di nuyu di am mbégte nag ba di jàkkaarloo waat ak yéen mm-hmm. ci seen émission bi nga ko ko bëgg muy mm-hmm. ma leen di ñu leen di man ak Boga sama góor sama xarit nee la mm-hmm. xool leen li mu def tey ci xeetu ma koy du man <laughs> ci xeetu baax da nga ma koy jiñ waaye du man sama góor. Ah. may nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi instant bi di jàkkaarloog Télé Musique Sénégal tey ñun ak yéen. Mhm. day neex. ah bu ma seetloo ah. yaa daba dafa mel que période tabaski bi dafay waaj a ñëw. ba mhm. tax tous les jours bu nu fàtte que ne yaa daba dafay sol tenue bi nga xamante ne si mooy tenue traditionnelle. Mhm. mooy yére wolof ci ay xeetu bi nga sol yaa daba tey bi nga sañse bi ban la. sama xeetu sama xeetu robe. sa xeetu robe. sama xeetu robe nii rek laay def ak ñoom. ba tabaski gi. ba tabaski bi waaw kay. kon à partir de lundi bi nii ba ñu egsi tabaski bi chaque jour yele off ngay sol kase ki di ko xamantene xamante Kumba madame nya moma ma fi fii ma ni rek lay def ak man ba tabaski ba tabaski jeg jeg jank jeg ñep xam nga ni li ku ne mën na ko sax lii filaaleel filaaleel waaw waaw très bien waaw waaw jaajëf waaw waaw wa te moo tax it tubaarkàlla jar tardé rob bi jarna tardé moo tax bi nga egg ma contane am ben problème très bien kon ñu yeggale ya ñu yeggale ya ayca moo ngi nonu c'est votre émission agendar eh, waxna len ko mo leni gunge suma ma tourné waatee tuuti te li nga xamanteni ni si yaada daba moy sunu écran bi nek sunu ginnaw di wone agenda des artistes ngeen koy am lundi Daba Sey ak El Baba mal borom Daniel Leñol yaakaar ni ngeen y'a euh, ko lundi bu jot mardi mercredi ba jeudi euh, kan Diallo momit ñu ngi jema euh, ñu ngi jema waxtaan ak mom yaakaar naa mu ngi dëggante khadim ndax mom mo solliciter pour ñew ci émission bi nga xamanteni ci moy agenda ça c'est le duo magique ajaratu ya Daba mbay e Boga mbay sama sista bi tubaarkàlla kenn du mom bi mu ci kër gi ba léegi ñëpp gis nañu wu yes yi nga xamanteni ci mo ngi koy jëmele ko ci télé bi xamante ni si mooy télémusique Sénégal agenda des artistes sur la TMS télémusique Sénégal wali Ballago Seck bi nga xamante ni si c'est le Framaren c'est le digne fils de son père sénégalais gis nañ ko Kumba Gawlo Seck moom ci kër gi la bokk ndax euh, ñëpp xam nañ ni Sangoné Birame jigéen moom it euh, moom sunu sunu lépp la Aïda Samb Viviane Chidid moom mi nga xamante ni si moom it ñu ngi koy xaar ci agenda ram ça c'est le bio bi nga xamante ni si sénégalais yi miin nañu ko te tàmm nañu ko dékku euh, semaine bu jot ñu ànd yéen lundi 17h 19h mardi 17h 19h mercredi jeudi ba vendredi euh, Diacha ñëw ci émission bi nga xamante ni si moom la tuddee lu bees waaye samedi bu nu fàtte que ni dañ leen di gunge ak émission bi nga xamante ni si moo tudd concerto ngeen ci ànd ak moom waaye tamit bu lënd bi jotee rek la capitaine est de retour ki nga xamante si mbaay maaw déggeen moo ko mbaay sa kumba ba jóol bàkkala demba ñaan ba jóol ngi gis ba bi ci ndànd saa ngóor bi ci gànjool waaye tamit sàmba jaare ma ca ngol yaakaar naa ni gën ris kenn du man ci réew mi eh. tey dama yokk gaan bi la wax xam nga dama woppoon xam nga ni lu ma demee waaw man ni nga ñëwee moo neex. parce que da damaa samp ay butéel. Sokaraat balayeel ma ci sama góor. waaw Sokaraat balayeel la taagu ñu dem. jëli balayeel balayeel ah. yow il faut nit ñi xam ah? nga sol tey. tubaarkàlla tubaarkàlla moom te tey dama koo njarde. da nga koo njarde xam nga dama dencoon ay valise dëgg tey dama ni peut-être lënd bi sénégalais yi ngay xaar agendar mm-hmm. euh, dama ñëwoon du ma sol valise bi ndax maa ngi waaj émission bu bees boo xamante ni si samedi soir lay am ma ci ànd ak téléspectateurs yi du leen gunge mm-hmm. ma rënkoon valise bi ne damay bàyyi ba samedi ci guddi yi may def nii waaye tey dama ni naa xëy ubbi ci rek laa ci ñam ci benn ci ay xeetu dàll ci xeetu pantalon ci xeetu simis baax na kon bëgg nga yàgg na kontaan nga yàgg na maa ngi ni toog

sénégalais yi sant yàlla sant yonent bi waaye tamit dañuy sant ñi nga xamante ni si ñoo ñuy soutenir mhm. depuis boobu ba léegi di ànd ak ñun nekk ay fidèles téléspectateurs di ànd ak télé bi nga xamante ni si mooy télé musique Sénégal télé bi nga xamante ni si euh, yaakaar naa ni moo mujjee génn gën a siiw gën a siiw gën a xew gën a xew xam nga du tuddee télé bi mm. autoroute à bi laa ko tuddee gën a gaaw gën a yees boo yàkkamtee moom ngay jël télé musique ko yàkkamti ñëwal maa la wax lii hmm. gën a xew. TMS. moo xew ci jamono. waaye le Cristiano ñëpp moom la ñuy seetaan. waaye le Cristiano Ronaldo ànd ak ki nga xamante ni si moom laa tuddee Zeyna la guerrière. dëgg neexul. la guerrière. Hmm? la guerrière est là. ah. <laughs> mu ngi noonu sénégalais yi waxoon nañu leen ko neewoon nañu leen se votre émission Agend'Art tey nag ñu dalal koo xamante ni si bu nu waxee ci wàllu perruque yaakaar naa ni sénégalais yi yàkkamti woon nañ tase ak moom ndax bu ñu nee ki nga xamante ni si mooy Cheikh Anta baay ba Alaaji Idrissa Ndiaye lay wuyoo waaye mooy mbokkum ndoyum Papa Ndiaye géwal waaye tamit Cheikh yamul ci mbalax Sénégal dafa tëggal képp koo xamante ni si artiste nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew waaye ndeem dafa ci suñu plateau te yéen sénégalais yi da ngeen yàkkamti woon jàkkaarloo ak ki nga xamante ni si mooy Cheikh Anta Ndiaye dañu koy daal di bàyyi mu nuyoog sénégalais yi waaye nuyoo bi muy nuyoo sénégalais yi du nuyoo gémmin du nuyoo làmmin du nuyoo du nuyoo du nuyoo wax wala du du nuyoo lu muy doon dañu koy bàyyi lii mu indi teg ko ba pare yorul galañ loolu la ñu bëgg a découvrir dandoo ensemble mu nuyoo ci ak sénégalais yaa Daba Mbaye nañu bàyyi Cheikh mu nuyoo ak sénégalais yi ñuy seetaan waaw dafa mel ni gan gi agsi na kon du ma ci teg lenn lu dul dañuy bàyyi Cheikh Anta nuyoo ak sénégalais yi su ma ñëwee daal leen lu tax ma taamu wayu Wally Ballago Seck Cheikh Anta Oh! Anta Ndiaye noonu la nuyoo sénégalais yi à travers Télé Musique Sénégal émission bu mag bi nga xamante ni si moo tudd agendar tey mu nekk suñu invité spécial agendar lay doon ak Cheikh Anta yaada ba daba dama lay daal di bàyyi nag nga jàkkaarloog ak Cheikh Anta Ndiaye ndax man bëri na laaj yoo xamante ni si sénégalais yi suggéré nañ ma ko jëmale ko ci Cheikh Anta su ko defee nga wëyal boo noppee ma daal di wëyal ñu jàkkaarloog moom sot sotoo ko yaa daba mbaay waaw kay moo ngi noonu gis ngeen lim fi def ngeen xam ne ndaanaan la këllu fadrin Cheikh Anta ñu gis ni Wally Ballago Seck soowam bii nga xamante ne si moom laa la dugale du soo juddee fekk baay nga mel ku joué ci euh, albumu Wally ko sekk boobu ba tey nga joué Wally ko Seck Cheikh Anta. waaw Sangono Birame jigéen. boo mhm. ma laajee dinaa la sa war a tontu. dëgg la balaatu sax ma nuyu Sénégal. Mhm. nuyu diaspora bi mhm. nuyu àdduna. ndax euh, euh, lii ma ñëw fii neex na ma trop ndax dama ñëw ci sama kër. Mhm. ah muy kër goo xamante ni yàkkamti woon naa ñëw taxaw nag. Mhm. def fii lu ni mel. Mhm. ndax yow euh, boo ma dalalee rek war na. dëgg du neex boo gaa mbaay suma rak suma xarit. di bëggee àdduna. waaw surprise na ma nag. ndax li tax mu surprise ma mooy boo juddoo fekk baay mu jël yoonu ba maam booy. donc kon li li way wi wax loolu la dama ko ci gis sama bopp. te ki ko way maak moom ñu de ma débuté ndoom moom ca ca ca ca loola mhm. looloo tax mu surprise ba mhm. waaw waaw surprise baa ngi noonu surprise baa ngi noonu euh, Cheikh Anta ginnaaw bi nga nuyoo ak sénégalais yi man nag fi may dooree ak yow mooy Cheikh Anta Ndiaye di doom ci Alaaji a Ndiaye di mbokkum de Papa Ndiaye géwél est que loolu moo tax Cheikh Anta judd ci ay sabar rek mu tëgg mhm. waaw parce que man nag defe naa ni kër Alaaji Idrissa Ndiaye moom ku fa juddu tëgg moom ah, doo ko jàngaani dafa mel ni da ngay judd ñu jallis la ko mm-hmm. parce que jaay taala ko du ci jumaa ji ci cëriñ dama mm-hmm. ko waxee woon rek mm-hmm. mooy maam uh-huh. dëgg du neex uh-huh. euh, euh, mu nekk loo xam ne maa mu jëy tëgg ci kër ga papa Ndiaye géewal suma grand frère yàlla dogal na ni man comme nongo daara la donc maam mu tëgg yàlla dogal ñuy dox di dox di dox man daal dama xëy suba teel rek yëf yi dugg ma mm. waaw ma jallis ma ma nit fit mu mel mu mel ni fit Cheikh sénégalais yëpp doon la xaar tey nga gàddu ndeer wala sénégalais yëpp doon la xaar tey nga yor galañ mais tey nga jël décision ne tey damay tëgg ak sama loxo pourquoi choix boobu noonu tey waaw parce que xam nga li ko waral mooy suma papa Doudou Ndiaye Rose mhm. dafa yóbbu sabar foo xam ni euh, adduna bépp teg nañ ci seen bët mhm. Mhm. man Cheikh Anta Ndiaye ma bëgg jël fa mu ko ba moom yóbbu ko fu ko raw ok li ya waral ma teg gale bi mm-hmm. parce que nit lu mënul def ci ay loxoom gisuma. dëgg la sabar dafa yaatu. Mhm. ginnaaw galañ am na lu ne ci ginnaaw. Mhm. donc looloo waral rek ñu loxo yi. Mhm. nga utiliser loxo yi léegi yaa daba est-ce que duñu de beneen démonstration boo xamante ni si Cheikh Anta tey ko fas yéenee may Sénégalais yi waaye tamit diaspora bi mm. bul fàtte que ni ñoom ñëpp ña nga toog di seetaan. Mm. Euh, ci kanam tuuti dinaa ñëw ci bouquet bu nekk fu waay nekk fa nga mën a jàpp pour seetaan ko. Mm. amaana nit ñi ñoo ngi ñuy dabb ci télémusique Sénégal te sénégalais yi di la seetaan dañu lay bàyyi nga daal di bégal sa ay soppe ci loxo yi nga décidé tey ne moom ngay tëggee li nga xamante ni si mooy percu bi boo dellu si waatee ñu gën a mën a waxtaan ak yow Cheikh. daf may neex ndax sabar rek laa xam man Ndiaye Talla Bakar Koddu. ayca xamul sabar. ayca Cheikh. wala biram jigéen nii. waaw waaw dafa dégg. <coughs> ndax. Euh. li gën a neex ci àdduna mooy. Mhm. ay géwël dalal la xam la ñuy wax. Mhm. boo tëggul la la ñu xam rek day compliqué. dëgg la mhm. bëgg a dem tuuti Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ba xam lu muy saf. Uh-huh. xamante ni si mooy ci Côte d'Ivoire mhm. Cheikh ñu gis la ak ki nga xamante ni si mooy DJ Awadi mhm. ngeen and di def world music Cheikh euh, euh, est-ce que percu yi moo la may euh, relation ba ak DJ Awadi wala njàng ñangan dafa jotone nga dem jangi ji li pour lolu mo waral tay ji yenn artiste yi di la mën a ngay and ak ñoom mhm. waaw boogaa boobu question buma neex la ndax DJ Awadi suma vieux père la ma koy nuyu de passage mu nekk ko xam tax na ma gis lu bari. Mm-hmm. ndax musique bi muy def. Mm-hmm. Euh, dafa international. Mm-hmm. donc sama xamanteeg moom sax mu ngi jóge ci Bouba Kiriko. ok moom laa doon joué. donc PBS di def seen anniversaire. Bouba Kiriko daan ne euh, DJ suma xarit Cheikh laa bëgg mu ñëw joué. mu ne ko est-ce que mën na li may def. parce que moom géwël yi dañuy tëgg en général. galañ kese. tu donc euh, Bouba ne ko. bu ñëwee di nga comprendre. Mhm. ma ñëw joué ak moom. Mhm. xam naa affaire bi nag dugg na ko parce que dama joué ak moom répertoire lu mu sa répétition. Mhm. tu donc loolu nag euh, sama relation ak moom foofu la jógee. yàlla def fu ma fu mu këpp rek ma baatere. parce que bi ma nekkee xale man dama sopp mu doon jàng jémbe di jàng ay bugarawu et tout ça. donc loolu nag euh, moo tax. bi ma nekkee ci moom. Mm-hmm. ma adopté. Mm-hmm. waaye par rapport ak festival yi ma doon dem ak moom di dajeek ay yeneen xeetu percussionniste yoo xamante nii dañu doy waar. Mm-hmm. naw ci la yàlla dogal yenn expérience yi di ñëw ndànk ndànk ndànk ba voilà. mu am ouverture boobu aca yaa daba. <laughs> waaw man foofu fi fi boogaa daanelee rek laa jëlee. ndax ñu gis la ngay joué ci Ramadaan. ma ma bëgg a xam avant ngay dem ci Wally Ballago Seck. Cheikh Anta ci yan daanaan la jaar. waaw. ci lii Cheikh avant muy dem ci Wally euh, yàlla dafa dogal man première orchestre bi ma njëkk a nekk Doudou Sow la noonu woon pa bi woyoon euh, Wadada obligé falaa njëkk jaar par rapport ak suma grand frère ma Cheikh ma koy nuyu moom moo ma ne jugal nga musique parce que sabar rek doyul mhm. donc moo ma yóbbu ci Doudou Sow mhm. après bi mu jógee ci du sew jaar naa ci ay Mapenda Seck et tout ak jóolóoli it band mhm. boobu ñoom ñi ngi dajale Abi Ndour Pape bi xam nga et cetera Ousmane Gange mhm. naw soo ñoom ñëpp bi ñu dajaloowee man maa leen doon tëggal mhm. après jógewaat foofu euh, joué ay cuuraay gongo bu ami meng jaar ci joué ci ay euh, comment dire ay alif yëpp maa ko play ak Myrma je t'aime extra extra bu mu limee rek damay xóotal you know ba ci euh, Euh, ni ma yàlla dogalee ma joué kii euh, album bi ma mujj bi ma taal Sénégal nag. Mhm. cëgin bu waali la. cëgin ok. Mhm. waaw parce que cëgin moo ma taal parce que cëgin laa ñëw joué ci albumu Volio. Mhm. donc bi ma ko joué après dama dem Allemagne. bi mu ñibbisee nag ci la yëf ya def nii. ma ñëw ndeysaan sekk maar daal di may woo na ma yaa ci biir. Ah, looloo looloo tax yëf yi demee noonu. yëf yi noonu te dara ñaawul jigéen ñi acca mu ngi noonu euh, album yi nga participé ci Sénégal bari na album yi nga bokk ci réew mi bari na ban album la ñu mën a xam ni ci carrière Cheikh Anta Ndiaye moo ko gën a marqué mooy album bi gën a def ci histoire ci moom ci album yi nga yi nga passé ci sa dina question. xel. xel bu Waly Seck. xel bu Waly. Mm. ok bu leer dee dox di dem. Mm-hmm. daf ma marqué trop parce que période bi ma koy enregistré. dafa tombenteeg mu mu doy waar. Mm. waaw nekk ci ay bagages yoo xam ne euh, doy na waar daal. affaire yu doy waar mais mm. bon. Mm. yàlla dama ca gisee ndox mu sedd. loolooy li ma gën a neex ci album yi ma jot a def. Euh, bu ñu seetloo booy wax da ngay utiliser langage su euh, anglais tukki bu bari bi ngay tukki la di ànd ak waykat yi moo ko def ci yow wala dafa dafa doon loo xamante ni si yow dafa dem ba doon habitude ci yow. waa tukki bi bi ngi ci ak. rappeurs yi. Mhm. parce que Awadi daf ma xaw a daf ma sonal la. dëgg parce que dama daan play moom mu a ma ay you know yu am yeah affaire bi day dem ba nekk jàpp mhm. xam ma ci man. Mhm. loolu moo tax langage bi demee noonu. voilà noonu la demee. acca yaa demoon. <laughs> waaw kay ñoo ko gisandoo. Uh-huh. Euh, Cheikh relation ak ki nga xamante ne si mooy euh, Thione Seck. Ah, relation ak Thione Seck xam xam nga ni kii dégg na de. dafa dégg. xam ngeen ni yaa dafa mi laajul laaju gone de déedéet déedéet waaye c'est normal euh, Waly Seck mhm. moo tax ma xam papa parce que bi may ñëw Ramadan mhm. Waly Seck moo moo ma woo téléphone lu ma suma papa mhm. boobu mi ngi def anniversaire u jaaga mu ne ma suma papa dafa bëgg euh, dafa soxla percussionniste ci la woo mbay si Ndiaye Mbaye si Ndiaye jox ko suma numéro. Mhm. ci la ma woo parce que boobu def naa benn diir boo xam ne nekkuma ci réew mi. Mhm. maa ngi doon nekkoon ci yeneen. ci mhm. vois donc bi loolu xewee. ci laa ñëw joué e te bi may ñëw di joué si e sax Thione Seck moom ci jëmi boppam. dafa ma xeeb waaw <laughs> ma xeeb sérieux parce que damay ñëw di yéegal ma ma ci kaw scène bi. mu ne ma yaay kan ah ma ne ko man la Cheikh Anta mu ne ak ni ngeen ndawee nii yow est-ce ma la ko daal tu vois. donc ci laa ko ne nan donc ci laay joué euh, soirée boobu. yàlla def mu réussir. voilà noonu la demee quoi. waaw euh, Cheikh Anta. Euh, Boga ñu gis ni génération bu bees bi Cheikh Anta. képp ku fi génnee single rek Cheikh Anta ci joué.

déedéet hmm. kooku du ndaanaan ci boppam la yam dafa aay pour boppam hmm. moo aayee dafa war a nekk tali ju wasaa fu ne pettaaw jaar fa hmm. moo indi ay ñoom xaadim taal ah. indi bastion indi papichou indi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak donc noonu la demee man dama nekk nit boo xamante ni dama ni euh, lii ma yàlla sédde ndeem am na loo xam ne pour Cheikh Mhm. waaye lépp lu mu ci mën a doon Cheikh Anta Ndiaye dina ko tasaki nawleen mhm. dëgg la dëgg la ndax dara saxul

wala soxlawul Boga Mbaye di ko wax mun ngeena tapé TMS espace suivi de votre message ngeen yónnee ko au 2400 TMS espace suivi de votre message ngeen yónnee ko au 2400 bu nu faté ka ni ñoo ngi tamit en direct sur Facebook mm. mun ngeena daw abonné ji ci Facebook ba def TMS Sénégal mm. bo leen duggé di ngeen gis Cheikh Anta Ndiaye live en direct waye tamit yéen it bu féké da ngeen am ay questions yo xamanteni si bëgg ngeen ko poser Cheikh Anta Ndiaye boo leen ko bindé rek mm-hmm. ñun dinañ ci mëna jot ba jottali ko ki nga xamanteni si moy Cheikh Anta Ndiaye Cheikh légui na dama bëgg ñu viré ci sabar mm-hmm. Cheikh Anta Ndiaye luy sabar. merci. ndax. Mhm. Bouga. ah. ya daba. Hmm. <laughs> damay deg nga nan Tumba. ak Rumba. ak Rumba. Mhm. Cheikh Anta ngi Tumba ngi Tumba Rumba ngi ni Cheikh ah. Anta. <laughs> waaw kon dafa nek Tumba ak Rumba. Mhm. ndaw Mumbai. ndaw mumbai waaw ah. man dama nan sax est-ce Tumba ak Rumba la est-ce du tumbay ak tumbay mbaay yi daje noonu ndax du mbaay bu booloo mais est-ce que du tumbaay ak rumbaay mais c'est vrai c'est vrai Cheikh yeah parce que dama xool affaire bi mais xam naa ni daal bu ñu dajee ñun ñett ñi mumbaay lay doon mumbaay lay doon waaw mumbaay lay doon waaw ayca demee parce que lépp ci kër gi lay xewee ah. waaw donc mm. sabar mm. dafa nekk loo xam ne dafa riche mm-hmm. mm. dafa riche lool parce que maam def ñu këriyeel euh, bant mhm. non la bébé créé bant mhm. non la démé donc mam ñëw xalaat fer gi mhm. ak messi ak xir gi ak derbeeg peeg bi mu nekk lo xamanteni mom lañu mom mu nekk lu riche lool euh ma gis ni sax légui amna ci ñenn ñoo xamné sax ñu ngi koy déformer diko def jémbee légui Cheikh nanu dellu ci fi nga tollu muy xir gi der gi ak li nga expliquer messi ben bu ci nekk nga expliquer ñu lool lan la doon waaw parce que bi law ba yettee sabar ba pare comme mën yi ñu teg mhm. maam dafa jël bant bi mhm. dem bënn ko set bën bën set bën bën muy fi peegi di dugg muy fi peegi di dugg ay ca euh, ñaareel ba mhm. mu xalaat ni moom maam wut deru bëy wat ba mu set jéem ko ci këpp pourquoi le choix de deru bëy waaw ndax boogaa yaa bàndi <laughs> xam nga xam nga xam nga nag bu ah. ko fooree ci sabar doo ko yéegal boo ko yéegalee day xotteeku bëy nag der bi dafa nangoo nooyi mhm. moom loolu la maam xalaat mhm. donc ci la xalaat der dem wuti mèche mhm. mooy avant mèche nga fer gi ngay gis nii moom la ñuy ràbb ba mu daj ñu daal di jël euh, xiir gi ci toog daal ko ci xiire daal di nag gis nga tracé yi ngay gis nii mooy accordé sabar bi ok ginnaaw dañ ko bu def ba mu defee loolu ba pare mhm. ci la jéem a xalaat nag jéegi jëlema jël mèche yi nag ràppaat ko ci biir fer gii ci suuf mhm. mooy waral boo dugalee peeg bi xëcc pour nga am son bi nga soxla ok sabare gi mhm. mais ci biir sabar gi mu doon moom musique sorewunu ndax sept notes la sept not la sabar sept notes la sept notes la yan mooy sept notes yi nekk ci sabar waaw parce que boo ne ne pour ñi nga xamante ni si dañu lay seetaan euh, yaa ngi ñu ngi dégg not yi géwël yi dinañ xam not bi nga tëgg mais ci sa gémmin not yooyu lan nag la dafa war a nekk ran taj tan bin parce que boo xoolee boo ñëwee ci musique da ngay dégg ci sawar mu nekk ran taj tan nag euh, nan nga mën a def yow ci sabar mm-hmm. nan nga mën a def ba accompagner rock nan nga mën a def ba accompagner reggae nan nga mën a def ba accompagner ah, comment di euh, acoustique et cetera et cetera parce que musique yi da ci àdduna yëpp sabar mën na ko accompagner mm-hmm. mais ci kaw yow mi koy def loolu beneen domaine la bu bokkul ak li maam bàyyi mm-hmm. ndax maam dafa bàyyi dafa bàyyi ceebu jën bàyyi fi baara bay mm-hmm. bàyyi fi gajalde bàyyi fi ndaw ràbbin bàyyi fi sànjaay bàyyi fi yangaab bàyyi fi yaaba composé bàyyi fi gumbe mu nek ay rythme yo xamanteni dafa extraordinaire lolou kenn du ko dindi mm. waaye àdduna day dox mm. ndax tay bo bëggon jël euh, yaaba composé tay ji xam nga yaaba composé ngi tu as vu yaaba composé boo bëggé bëggee tay té euh, té té xamou nan nga ko mëna a tay ci ben ci ben musique bu melni folk wala mu melni euh, rap wala mu melni ni acoustique loolu beneen domaine la. ok mooy li nekk ci ginnaaw sabar mooy li ma la wax tout na l'heure la dafa am lu nekk ci ginnaaw sabar loo xamante ni dafa am solo. Mm-hmm. tu as vu. Mm-hmm. am solo tellement ba nga xamante ni géwél bu nekk da ko war a gëstu. Mm-hmm. parce que boo ko lay ku ci mel ni Maguette Fall. bi euh, ngi États-Unis mu ngi Amérique ma jëfal sama xarit sama waay la moom it ni yaay ma ni jooyta noppeegunu dëgg la ah di tëggal mhm. boo xoolee li tax mu dem ba Amérique baase fa yóbbu drapeau Sénégal feneen c'est parce que daf ko gëstu mhm. moo dal Dakumba dal Pape Seck Samori dal sama xarit yi nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp loolu la ñuy mhm. parce que dañoo gëstu la na ca ginnaaw te ñàkk gëstu la na ca ginnaaw nag wóorut ndax su ma juumul seetaan nañ sànq euh, Dakumba mu def cover ci wali balago Seck wa léegi ay Tumba la teg de mais pourtant lam cey joué ak a neex lool waaye musique buy daw nga àbb musique bi tek ko jël say jël say inspiration bopp toog di ci joué kooku xam-xam la maa ngi koy nuyu de passage sama mm-hmm. xarit boobu léegi Cheikh bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni si mooy sabar yaa daba nga baal ma mm-hmm. ndax tey ji dafa bëri sénégalais yoo xamante ni si danoo yàkkamti woon suñu jotaay bi ak yow pour mën a xam mm-hmm. réellement euh, lan mooy sabar euh, tey nag yow duñ la invité c'est tout à fait normal nga ni percussionniste nga ñu jublu carrément ci sabar soog a mën a tuxu jëm ci musique léegi bi nekk ci sa kanam muy bii nga jàkkaarloo teg ci say loxo boobu ban sabar la kii Mamadou la ok Mamadou Valcaire la am na am na mëmbën gii nii am na bàll. bàll am na walkeer. ok bàll moo koy gën gudd tuuti gën ko rëy koll. ok kooku mooy bàll. comme donc moom noonu la deme moom ma nekk. moom moo nekk noonu. waaw ba nekk ca wet ga. kii tung ni la. ok dafa gàtt te bari solo. mi ngi mën nii um, ngay togg ceebu jën. Hmm. Hmm. te defoo ci xorom. dëgg la day xaw a lewet. Hmm. moom noonu la mel. dafay harmoniser. boo xoolee sax moom laa joué ram dans temps yi yëpp. ok. ndax dafa bëri bagage. harmonie kese la. harmonie kese la ci kaw nit nga xam na nga koy placé. na koy placer ba ca tey ma nekk ni jëm ci ñun. ci ci topp. kii man da bokku na ci sabar yi ma gëna neex. du fiiraange du dara ndax dafa di Baay Faal. la muy xiin. muy xiin ku ne xam na ni xiin mom ci Baay la ne. li tax ma koy faral di duggal ci suma suma jeu lu melni ni acoustique wala bu gëra bu parce que dafa am harmonie bu bu extraordinaire ah, dina la jox tambaas mm-hmm. dina la jox tabala mm-hmm. dina la jox jéeri yow sax war ngaa xam li may wax rek ah, leen mm-hmm. mu ngi noonu noonu la demee hmm? Adama Mbaye boo ko laajoon loolu léegi dëgg la sama xarit boobu xam naa dana ne la loolu dëgg la dëgg la noonu la demee waaw kii ci topp nag ci topp mooy cóol mooy cóol ah. waaw cóol nag dafa am gorong talmat am làmb am cóol am cóol amit gor ma mabas am gor ngu mabas euh, pourquoi bu ñu gisee bâti bu taxaw dañuy gis cool mooy jiitu ca kanam euh, euh, di diriger waaw ça dépend bu fekkee sabar la mhm. ndeeree jiitu ca kanam bu fekkee dañuy tëgg làmb mhm. coolay jiitu ca kanam bu fekkee sabar la ndeer mooy jiitu bu fekkee làmb cool mooy jiitu décortiquer ñu pourquoi sabar ndeer bu fekkee làmb cool mhm. waaw parce que boo xoolee ndax dafa dafay des sax parce que ba ci kii sax day day day diriger laabaan ok laabaan waaw Mm-hmm. cosaan la mm-hmm. du fi jóg dëgg la mm-hmm. kii yee koy kii yee koy jiite te day bàkk juróom-ñaari garab moom cool mi noonu muy falee jaraaf xam nga bu ñuy fal jaraaf dañuy tëgg cëw li ca kanam tëgg donc cool la tëgg parce que moom ki mbóotam maam mag la ko maam tënkee yaa ngi fii hmm. bu dee ndeer la nag hmm. bu dee sabar la li tax ndeer di jiitu ci kanam mooy sabar gi dafa gudd ba pare bëri coow hmm. comme yeneen yëpp dañ koy accompagner moom moo war a diriger donc faaw mu bëri coow loolu waral mu jiitu ok dëgg la boogaabaa ñu <laughs> euh, Cheikh Anta Ndiaye uh-huh. damay bàyyi téléspectateurs yi ñu daal dem xool euh, régie bu baaxee benn extrait boo xamante ne si nañ fee ca studio la su baxé rek ñu daal di dem sétane lool té ñëwaat ci plateau wa ya da dama waay. salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tay nak ñu sét si ki nga xamanteni ci si Cheikh Anta Ndiaye Cheikh Anta Ndiaye ñu fekk ko fi nga xamanteni ci si studio muy préparer du lourd dama koy baye ak yeen mu daal di nuyu rek wax ñu lan lay préparer Cheikh Anta ñu ngi lay nuyu waaw yaa daba maa ngi lay fay di am contentement ak mbégte bu rëy rëy ci bi nga ma fekkee ci sama bërëbu liggéeyukaay muy studio bu la nga xamante ni ñoom ginnaaw yàlla maa ngi ñoom ñoo ne ah fii laa làqatu nag waaw moo tax sax xam naa nga gëj maa fiil you know nekk di nekk ci ah, di préparer suñu album ah, xam naa bientôt du yàgg dara sax incha allahu rabbi mu naa am tey waa suba am bu ci génn ah muy doxinu naat jox ko askan wi ñi nga xamante ni dañuy bégee te toogaay bi yàgg na waaye yàggaay bi baax na ndax li tax mu baax mooy tax na ñu ngi gëstu xam nga am na lu ñuy préparé incha allah rabi dina ñëw bientôt. waaw albom bi nag moom euh, yàlla dogal na ni euh, benn morceau moo ci nekk euh, bu am mbalax muy doxinu naat yeneen yëpp fay wol musique la parce que li naan lu ñor tab bi ak lu gësam indi du ñu benn. Mhm, noonu la demee xam nga da wolof donc ñor na faaw mu ne put wad muy mango mbal lu mu doon ñu dagg ko lekk te xamni ni loolu nu yàlla you know yalla def na ni dañuy accompagner Wally Balago sek you know mu nekk suñu leader nekk suñu rak, nekk suñu xarit ci wa je di donc yalla dogal ni mu nekk leader bu baax bo xamanteni kenn ku ci nekk sa carrière mom daf ko gënal sax bosam looloo tax ñu ñëw fi laqatu xam nga di préparer lo xamanteni tamit wax di yalla dañu bokku ci musique bi te faaw ñu dek tek ci dara ah doona na lu xawa metti parce que xam nga ku tam ku tam di liggéey tout temps bu ñu xeyé na la doo liggéey nek na lu metti nek na lu dur ci wa ci côté bobu metti na financièrement mais da ngay muñ and ak dignité té xam ni daan nga dund nga lu yàgg yàgg te li dalul ci sa kaw donc bu dalé sa kaw da koy santé suñu borom waaw mais nak ci kaw dal gi taxna tamit kenn ku nek làqatu nga yulleeku waaw li ne ci yow nga yulli ko pour jox ko ñu lay bégee ñu bégee waaw doxinu naat nag xam nga jigéen ndaysaan sunu borom dafa dëxañ ci moom lu bari lu doy waar xam nga jigéen euh, bu dee wax ndànk di dox ndànk te du waaxu tey lamsal di ree tey neex a gis mu bëgg rek euh, xale yi di dox ndànk di wax ndànk tey def yi doxinu naat naat dafa jongoma nii rek lay def eh. avant Agend'Art Télé ci boppam moo nekk télé bi nga xamante ni mu dugg ci biir gaa ñi fekk ñi làqatu mu loqati leen ne leen ñii ñii la you parce que euh, Sénégal yàgg na euh, ay nit dañ daan def dara kenn du leen teg te la musique xàmmeewul ki wala deux déedéet ku ne la ngay def dana ko seet ba xam fa mu ne lokoti ko ne mi ngi kon donc télé musique moom dañuy ñaanal directeur bi yàlla defal ko jàmm sàmm ko sàmm ña fa ne ndax bu télé musique demee ca kanam ñun musiciens yi dañuy dem ci kanam ah, parce que mooy suñ télé aussi hmm? noonu la demee donc Agent Dar nag dafa tënk boppam Agent Dar nga wax <laughs> moo ngi noonu kooku moo nekkoon Cheikh Anta Ndiaye ndax dañoo doxantu won bo gambay ba studio bi la fekk fa Cheikh Anta Ndiaye mhm. nga gis ambiance bi ak artiste yi mhm. ni liñu am complicité bi mhm. Cheikh Anta ndax dem dañoo ñew fekk la sa biir studio ngay préparer lu doy waat agenda du Cheikh Anta Cheikh Anta ñamal ñu tuti ci foofu non ci wa ambiance bi nak da fay da fay da fay nekk lo xam da fay neex day dakk lepp parce que yak say frère lay doon yaag say nawle lay doon te mm. kenn ku ci nekk ak yéene bi mu am mm-hmm. ci liggéey bi nga ko woo dëgg bon donc loolu dafa nekk loo xamante ni man daf ma dàqal lu ne ndax xam nga tey jii euh, bu fekkee da Papis Ndiaye toog na mu ngoone Jeng toog ah Jeng mm-hmm. Saala yori batterim mm-hmm. ci xante yori berkeem gars yi toog xam nga loolu beneen ambiance loolu artiste loolu dafa mm-hmm. nekk lu neex quoi dafa neex loolu dafa neex aussi ah. vu que vu que Cheikh Anta Ndiaye fekk nañ ko fee nga xamante ni si mooy ca studio ba te bu ñu nee studio ku nekk di nga wax musique ay pëtëxloo Cheikh musique dafa nekkoon lo jang mhm. pour meuna am accord yi nga xamanteni ci yang koy wax ci xéetu diversité musicale am mhm. ci réew mi wala dafa nekk lo xamanteni ci yow da nga ci judd rek yalla xir la ci. waaw mhm. parce que suma mag Papa ndjay Géwël dafa toj Sénégal. yarma ma. tu vois dans le jeu bu musane joué ben affaire man dama koy relever. manam bu ko bu joué album tay bu subaa way relever album bi comme si que man daf ma sol. di déglu coo mbaay lu bari. Mm-hmm. sama papa jooju mm-hmm. xam nga déglu ay gars yi. Mm-hmm. ba ñoom ñëpp affaire bi nekk na ci man. am na ci loo xam ne nag dama ko faa bàyyi dem wuti ji ko. te maa ko amee ci dut saw. number one parce que foofu salsa la. salsa te salsa dafa dafa dafa dafa rëy. noonu la demee. loolu la ma yàlla loolu la ma musique duggee. loolu la musique duggee. am na ci loo xam ne it don la. don la ok. ok amna na loo xamante don la acca adaba doxal doxalal su baaxee rek dañuy daal dem sét li nga xamné moy extrait Papis Ndiaye extrait Papis Ndiaye Papis Ndiaye dafa wax ci Cheikh Anta bu baax a baax a baax kon nañ ko seetaan su ko défé bu ñu retourner ci plateau bi agalé waxtaan wi nga xamante ni mom lañu am ak Cheikh Anta Ndiaye ayca salaamaaleykum Sénégal euh, salaamaaleykum l'Afrique et le monde je me présente Papis Ndiaye artiste auteur compositeur chef d'orchestre du groupe Ramdan euh, et, du Studio Bleu. Wow euh, produire artiste je veux dire euh, c'est donner un élan par rapport à les instrumentistes pour man il faut savoir donner la chance qu'il faut affaire bi rek du production Il faut dañ une il mutations musique il y a des changements qui doivent s'appliquer Des changements c'est commencer par ñi mettre devant ça, c'est pour préparer l'avenir, mais c'est aussi pour apporter une constance si li nga xam ne bi lañ en termes d'âge sama m'a la en termes d'expérience am na si lu bari loo xam bi si album bi à venir que si moom le donc nous on fait que développer on fait que ouvrir les axes yi nga xam ne bi mooy tax accéder à un niveau international et là c'est valable pour trans d'âge c'est-à-dire ñëpp euh, il faut ñu fësal ligue bi ñuy def si ginnaaw looloo waral production bi avec euh, les moyens du bord et les moyens du studio bleu bon c'est tout à fait normal par rapport à son talent Il y a une opportunité pour mu prendre son envol. par rapport à l'album Je euh, bëgguma ko gis ci caractère album dama j'ai jamais je ne l'ai jamais perçu comme un album j'ai dit euh, day def ay réalisations réalisation. Je ne jamono répertoire Si on a bu ñu suñ album ñu répertoire comme dans un sac ñu donc c'est un travail habituel bon xam ça fait plus de 3-4 ans ñu koy depuis suñu retour Bercy j'ai vu ben orientation la war a la comment on s'est appliqué parce que am na morceau ça fait facilement 5 ans euh, donc mu nekk liggéey boo xam chaque jour dañ koy été en ko donc moi personnellement en tant que euh, ki ko koy moniteur je peux dire que amul benn liggéeyu au jour le jour c'est-à-dire c'est un truc boo ça vient naturellement parce qu'un instrumentiste qui def tamit changer une révolution une benn affaire il a besoin vraiment que ce soit un sans faute sans faute moi, moo waral ans il a un répertoire énorme boo xam bi studio euh, comme nous, ñu avons nii si album Inch'Allah, allah dañuy sëgg rek fort rek génne. waaw euh, euh, complexité liggéey bi sax lay wax yàlla simplifier parce que. Euh, donc c'est un témoignage que je peux faire sur lui il a un, talent énorme ça peut même s'appliquer au-delà de une musique bi donc quand tu as un élément comme ça il def aussi ñu am chance ñuy partager Ramadan Nous euh, avons liggéey bon, il y a daf si bon déjà dans ce travail là euh, Des bi est foofu il lañ Moi, la transporter automatiquement si son travail personnel parce que dans 80 de mes limay les limay man que ce soit pour lui, que ce soit pour d'autres artistes, voilà, pour mes projets personnels, il prend partie intégrante. Et soo dundee expérience pour en termes de disponibilité en termes de talent je suis là, mu tu tu cherches pas loin. Euh, la personne en tant que telle je que peux définir comme une la définir comme une personne bo mun naa j'ose le dire parce que quand je dis euh, musul rangé il est difficile par rapport à la sollicitation par rapport à ce euh, euh, bi au sein du Ramadan tu es instable tu es un fils ou un fils. il est difficile il est difficile nga es ko c'est loxo <clears throat> mais il y a toujours un problème boo c'est un problème que je régler c'est-à-dire tu le prends au vol en vol pendant qu'il est en l'air parce c'est là que ses meilleures idées sortent pendant qu'il est Si je suis di téléphone ci studio bi di dem ak dellu c'est instant beau, c'est c'est meilleur moment. Aïcha Aïcha. agendar bu nu nee agendar nag véritablement dañuy daw fekk ci artiste bi ci li nga xamante ni si foofu lay yëngoo tax mu ñu nee artist moom yaakaar naa ni dëkkuwaayam studio da cee bokk ba tax na ñu ngi gis ki nga xamante ni si mooy euh, Papis Ndiaye bu ñu nee Papis Ndiaye nag sénégalais yi miin nañu ko ci Ramadan mu nekk chef d'orchestre nekk koo xamante ni si bu ñu nee harmonie rek wala nga wax loo xamante ni si sentiment la jëm ci clavier sénégalais yi miin nañu ko ñu koy nuyu au passage euh, bi nga xamante ni si mooy Papis euh, Ndiaye waaye nag Cheikh Anta tey dafa doon invité boo xamante ni si sénégalais yi ñu war a xam ci moom bari na xeetu bari boo xamante ni si yaadaba waajal na ko waaye man it boogaa mbaay waajal naa ko damay daal di bàyyi yaadaba mu yàggale fi mu tolloon ak Cheikh Anta Ndiaye su ko defee ñu gën a mën a xuus ndaxte su ma jumul heure bi demagul fenn lu ñu desee ak Cheikh Anta bari na bari goo xamante ni si tey Tumba lay doon ak Rumba ajaratu Rumba Mbay doxalal ndax loolu nga gis di Papis Ndiaye. Mhm. Euh, wax ko ci Cheikh Anta. Mhm. démb ñu dem daagu fa fekk ko studio bleu. Mhm. mu nekk fa ak artistes yeeg Cheikh Anta ñuy ambiance loolu xam nga ni dafa neex. Cheikh Anta dafa neex lool lool. mais Cheikh Anta damay ñëw ak yow. ci sa diggante yow ak euh, Papa Ndiaye Guewel nga xam ni sa début sa début carrière yaa ak Papa Ndiaye Guewel la ko joué tey nga bay sa waar nga ñëw fekk euh, musique sénégalaise sature nga bay sa waar ba tey am place bi nga fi am ba tax ba ba ba ba tax na képp koo xamante si day génn album bu hmm. woowul seex Anta Ndiaye mu mel ni tëggul wala bu woowul seex Anta Ndiaye mel ni daal li muy sentir booba mbaay yëgu ko yëgu ko daal hmm. Cheikh Anta hmm. waaw Papa Ndiaye Géwël nag euh, yàlla dafa def ni albumam yëpp donc yàlla dafa daan dogal dama daan xalaat ma nekk xale yàlla teel ma may ma ma ma mën a créer ma mën a créer bac mën a créer beat te boobu pourtant Euh, maa gën a néew maa gën a nekk xale kër ga mhm. Mhm. Euh, muy def Papa Ndiaye géwël mhm. te daan ñëw toog na ma ban baax nga xalaat moom mii ma ko suma gémmiñ <laughs> bu xëy si wa dem studio kon donc lu yàggal nekk la ci man mais def na ci man tamit benn affaire parce que ay jamono bu ñu daan mus di tëgg soirée sénégalaise ravin bon donc suñu musaan tëgg lu mu def rek na ma Cheikh ma def ko lu mu def ma def ko daan na ma wax naan ma bis moo fi nekkatul yaa koy téye ok Ah, parce que soirée bi ñu mujjee tëgg loolu la wax mhm. dafa jël micro bi boobu Thio Mbaye mi ngi fa Bakkan Babacar waree ba ñoom ñëpp ñu ngi fa mhm. mu daan ne su ma nekkatul Sénégal xoolee leen ma kii ndax lépp ci moom donc xëy loolu ñaan gu nangu la mhm. gu fekk si tombanteeg yàlla dogal loolu am moo waral xëy na peut-être jéego bi moo waral jéego ok <laughs> yàlla ba nee na tamit nga ñëw fekk musique saturée waaye seex Anta bay ci waaram ba euh, képp koo xamante ni si dafay def album foo jaar moom Cheikh Anta Ndiaye mm-hmm. musicalement Cheikh Anta Ndiaye musicalement mm-hmm. waaw mais xam nga cin nag bokkul safin nag mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, yàlla dogal na ni ay géwël lanu percussionniste lañu te ñëpp yàlla def na ci ñoom dara kenn ku ci ne am na xam-xam bu yàlla def ci yow man nangul la ko nag te xam ne yow yàlla def na loolu ci yow waaye Cheikh li tax mu demee ni mu deme yàlla yàlla teg na ko loxo macha allah dëgg la waaye ak liggéeyam bu metti mm. bu tar ndax man gars yi dañ daan tëggi sabar mm-hmm. di tëgg tànni béer wala yendu mm-hmm. te boobu ma am cent franc mm-hmm. ma bàyyi leen fa dem di gëstu ju jëmbe wala may dem di xoslu dem toog ci benn boite di xaar ñi muy waaj a jeex pour ma mun a dugg bëf donc kon xam nga ni loolu tar na tu vois mm-hmm. su ma euh, daan nekk dama daan joué Doudou Sow euh, mm-hmm. bu ñu amee euh, bu ñu daan joué Sunrise mm-hmm. xam naa ni boobu mi ngi dend ak Sahel loolu xaw naa yàgg de <laughs> loolu ah, fekkee ko man maa ko waaw noonu la demee donc mi ngi <laughs> <laughs> donc mi ngi mi ngi nekkoon en face Sahel donc bu ma mësaan ñëw di joué si foofu buñ dañ may tegal tabourier parce que man dama dama gàtt xam nga dama dama ndaw donc bu ma ñëwee dama daan teel a jóge gàlle dem pour huit heures mën maa fekk wala neuf heures xam nga ni soirée booy dem neuf heures miti na donc damay dem toog ci bu damay may nelaw ba may jékki-jékki rek ñu yeema na ma yow dur saw léegi mu commencé donc ma jóg ak bizarrement nii mhm. xam nga dem yéeg ci tablier bi toog ci kaw ngaas yi joué mhm. mu nekk benn affaire boo xamante ni kon loo loo xooslu la waaw li tax nag euh,

Dakar waaw waaw waaw ba ba bu fal mhm. sama papa day taxaw yorum ndend man ci ginaaw nah, di malaxal batay dan it dañ ko koy fay mu mhm. bok ci dakar ndax mhm. gabu njaay bi rengu ñu mama njaay penda jojo koku boko ko genn dakar dina metti torop dëgg la Makhtar Diop mii tey bu toogee bi dana xam ni koy bak yaa ngi dégg wax be baax a baax sama maam da daan gétti mm. mooy papa yi Mbaye Diop mm. Mbaye Gueye Ndiaye moom lañ mm. duppee Mbaye Gueye Petit la da daan dem teeru bàyyi soo gi gétti napp indi kër ga waaw génn ma Ndakaaru xool déedéet déedéet kenn xalaatu kenn xalaatu léegi loolu waral ma ne la cin bokkul safin dëgg la mm-hmm. donc ma bi ma jàngee ba tari jot waaye du ma lebal kenn. déedéet du ma baal kenn damay tari ah. bi ngay tari. Cheikh Anta ñu gis ko ci ay percu euh, mais yan façon instrument la Cheikh tàmm di jouer ndax gis nañ ni tey sabar la euh, yan instrument laa bëgg nga limal ko euh, sénégalais yi lay déglu ñu xam ne que Cheikh Anta dafay jouer loolu lu jëm ci wàllu percu. Cheikh Anta. Mhm. ni mu demale waaye kon dama lay indi lépp. Mhm. Ah. lépp laa lay indi Cheikh Anta day tëgg ci ci ci table ji verre bi. daa nekk question dafa nekk question bu ma écho woon far nga jiitu ma ci ndax euh, Serif Seck mi nga xamante ni si mooy mag ci Bambaali Seck démb man ak moom danoo waxtaan une temps jëm ci yow. waaw léegi doxalal. xam nga. <coughs> Cheikh Anta mën na tëgg sax ci yaramam. dëgg la. kon donc loolu don la. don la don bu yàlla def ci man. Mm. Mm. donc damay tëgg jëmbe sabar mm. tumba sëwru baa Euh, damay tëgg damay damay xeetu percussion yi daal euh, ay kaaxoon leket mhm. yàlla dogal na ni daal dama koy def xam ne nag loolu lu yàlla lu yàlla namm la rek. lu yàlla namm la. loolu <laughs> la loolu la demee quoi yàlla a bàyyi. yàlla ba dafa mel ni dafa am question boo waajaloon pour jëm ci Cheikh Anta Ndiaye man it ma am lu ma waajal ci sa biir question boobu jëm ci Cheikh Anta doxalal. waaw bala ñoo dem foofu tey ñoo dem fële. fan setan li nga xamanteni si moom lañ dégg ci studio bi ta ñëwaat kon cheikh bi ngeen ko fekkee studio dafa am lu mu defar <laughs> pour pour pour jox ko sénégalais mhm. malgré que vidéo bi gul waye son ba paré na son ba paré na nañ son ba nuppi nañ ko déglu ma ñëw ci question yi kon cheikh fofu mu taxaw rek mun nako koo play back mun na koo encore sénégalais ni ko gis

ndax ndaxte Cheikh Anta. am na yu bari yu muy bu moom ci ginnaawam. Cheikh Anta mi <laughs> dafa am Cheikh di nëbbu ci ginnaaw man Anta dama choqué. waaw yow yaa dama yow lay wax nii. Hmm. comme dafa am loo fekk studio lu lu lu lu. waaw Cheikh Anta yow li tax ba ngeen yaa dama. sama mag ji da ngaa xawoon a tawat da ngaa sawat damaa woppoon damaa woppoon ku ne xam ne ni dem yaa ci gaaw dëgg la moo tax ma jaar say tànk rek mm, mm, mm. ah noppal la rek benn diir ah am noo def <laughs> daa di am noo defal la surprise sama mag ji ayca léegi nag yaakaar naa ni régie foofu baax na euh, yéen ni ngeen ko ni ngeen ko yeesalee euh, ba mu baax yéen pour Sénégal jot Sénégalais yi jot ci foofu baax na su ko defee dañuy daal di déglu morceau bi nga xamante ni si moom la Cheikh Anta pare pour jox ko yi livré ko à domicile mm-hmm. fii nga xamante ni si moo ci Télé Musique mm-hmm. Sénégal ñu àndoon ak sénégalais yi mm-hmm. découvrir ko ay cëri si su baaxee ñu daal di dem ay ca waaw mais xam nga boogaa balaa ñu dem foofa waaw waaw balaa ñuy dem foofu damul ah. dafa am loo xamante ni euh, xam nga gis nga dafa am lu war remarqué te sant ko yàlla rek muy lan xam nga jémbe bu njëkkoon dañ ko daan xam ci muy accompagner beneen xeetu musique ok tu bi ma nekkee Ramadaan mm-hmm. njagar fay sañ-sañ di mm-hmm. mbalax mbay si njaay gu ma mi ci mbaagu njaay di tëgg coow ok pour ma am sonorité bu bees dama indi jéem jéembe ñëw teg ko di ko joué ak galañ te jéembe ñëpp dañ koo xamoon ak loxo ak loxo ak sax ci beneen xeetu musique ok donc bi ma indee loolu quelque temps après gis naa ni ñëpp ko copier <laughs> you know sant ok après mm-hmm. ci laa ne xaaral ma xool neneen lu ma def indi tungune nga xam ni dafa ndaw. comme mm. boo ko yoree gars yi peut-être mën nañ la mën a copier mais tey it sant yàlla la léegi nga am leneen loo indi te bëgguma nga dugg ci ndax dama ko dama ko dama ko téye pour yow téel ma loolu euh, ndem sénégalais yi xam nañ li nga indi ci musique bari na bi nga indee jémbe di ci tëgg ak ay galañ mhm. ah, ak ak ak xeetu style bi nga ko booleel ñu bari copier nga dem indi ci tungu ne mu nekkaat ci biir musique euh, sénégalais yi euh, moom it daw daw copier la nga am leneen loo indi loo xamante ni si nag maa ngi ciy ñëw te gis naa ni sénégalais yi fi mu ne ñëpp ñoo ngi la ciy copier Cheikh damaa bëgg tey sénégalais yi xam kan mooy Cheikh Anta Ndiaye waaw danañ ko ndax dafa jot parce que xam nga boogaa euh, yow li nga ci mën a wax sax bari na waaye xam naa ne da nga may coppati da nga may ma di ma di ma di ma kaata waaw waaye ba tey baax na ah. mais xam nga ah. euh, dafa nekk loo xamante ni hmm. lii da ciy baax li tax télémusique neex na hmm. man en personne sa à dire dafa ñëw fekk li naan jaay laa la fa cere ja ñore dëgg la ñun musiciens yi artistes yi. Hmm. moom suñu instrument war ko mën a développer saa su ne war a am kër gu nu koy defee. Hmm. mu nuy yomb loolu. Hmm. daf noo jafe woon. te bi télémusique ñëwee yomb noonu. ok. billaahi barke Cheikh Ibra tele bi yàlla na ko suñu borom gën a yëkkati parce que ñun ñun la dimbali en fait ñun la dimbali parce que tey jii euh, boo bëggoon dem euh, waree ba ay jamono boo bëggoon yóbbu pour décortiquer nangam nangam dafa amoon ci ñun ko yemale dëgg la nii dañ ko yemale woon ci ay comme genre bugguma cité tour sax xam nga ci yenn yi ñoom mbay géey wala yofa nana na parce que ñoo ñoo jiitu ñoo ñoo jiitu waaw ñooñu nag bi jiitoo yàlla def na ni mhm. am na ñu fa topp toppaat fa toppaat fa te ñii ne ci ginnaaw mhm. ñooy jële lii ñoom fan ko teg ñun ñoo ko fay jële yóbbu ko feneen c'est vrai man percussion mhm. dama koy yóbbu fu ko kenn yóbbuwul dëgg la man Cheikh Anta. dëgg na Cheikh Anta dañ ko gis ci concert bu mag mo and ak DJ Awadi ko xam Awadi xam ni hip hop lay def hip hop. Mm-hmm. Cheikh Anta tek ay percu di teug percu kon bo ne yóbbu nga ko fu ni yobul lolou dañ koy dañ koy parce que xam nga ku melni Bo jaw mm-hmm. borom montreal Bo jaw Bo jaw ah. moy def ay musique bo xamanteni doyna wa doyna wa doy waaw ñooñu bu ma ak ñom dama len di def lu ma neex. dëgg la parce que lañuy def ndaysan sama papa du Ndiaye bi jé jojo bena jo bu awadi mhm. ndeysaan ma nga ci dëgg lu neex te la hmm. xoolal la mu def la mu neexee dëgg la mu ànd ki sabar ak ak bi mu neex kon sabar lu mu munul amul yow hmm. nga koy def nag na ko seet kon Cheikh bu ñu la déggee ci ni ngay waxee da nga am référence boo xamante ni si dafa jóge ci sunu bàyyi dund yaay Coumba Rose yàlla na ko yàlla yërëm jëm si ci dernière génération bi nga xamante ni si ñoom nga toll mais mais loolu la parce que man fi ko sam papa teg dama ko fa bëgg a teggi yóbbu ko feneen muy dëgg. waaw waaw yóbbu de. ak fan. Hmm. Cheikh Anta. Uh-huh. Euh, Boga Mbaye. Uh-huh. démb bu ñu demee ci studio ba. Uh-huh. dañ ko fekk muy préparer lu doy waar. lu doy waar waaw. Cheikh Anta di way. <laughs> Cheikh Anta. di way Cheikh Anta nekk ndaanaan ñëpp xam ko ci tëgg sabar. Hmm. Cheikh Anta way. Hmm. lu tax Cheikh Anta way. yaa dama mm-hmm. yaa dama fi ngay cukk noonu dama ko nëbbal. <laughs> léegi dem fi muy cukk noonu dama ko nëbbal. c'est euh, yaa dama est-ce que doon dem euh, découvrir li nga xamante ni si moom la Cheikh Anta def. Mm-hmm. su ko defee Sénégal yi mënu koo déglu ensemble ak ñun réseau yaakaar naa ni baax na su ko defee Cheikh Play Bakko waxtaan wi foofu lay gën a neexee. foofu lay neexee foofu lay ko Tumba Mbaay Rumba Mbaay. Tumba Mbaay. ayca Alaaji Tumba. ayca moo ngi noonu rési euh, may nga xamante

things today. sonal na ko am leneen loo xamante ni si dafa yeewu ci moom ndax yéen ñi nga xamante ni si yéenay seetaan télémusique Sénégal yaakaar naa ni man mii ni ma yëf yi bettee yéen noonu la leen yëf yi bettee mm-hmm. Cheikh Anta Ndiaye euh, désormais sénégalais yi gis nañ ko ci beneen facette bu bokkul ak bi ñu miinoon ci moom yaa daba mbaay waaw mu nekk lu neex a neex uh-huh. ni mu la bettee nii noonu la ma bettee démb waaye noonu la bettee ñi nga xamante ni si ñooy seetaan Cheikh Anta di way nekk ndaanaan Cheikh Anta way Cheikh lu tax nga way mais lii dafa neex mais yaa dama yow loqati nga ma mais Cheikh ah mais xam nga artiste dafa mhm. ëmb lépp dëgg la si fi que artiste nga rek mhm. man pour man na war a nekk benn polyvalent rek waroo bàyyi dara mhm. donc li ñu dugal ci way yi nag moom xam naa ni euh, lu doon nelaw la rek peut-être jékki-jékki rek yew parce que yag nañ tok studio genre di fawontu ay mélodie ak nangam nangam mhm. mais li tax mo bind morse bi moy xalé yi ñuy ci mbedd mi mhm. ok ok donc viol bi dafa bari mhm. dama dama tok yew setante la ñu may wax ay xale yu ñuy rey kërëp kërëp nangam nangam sama xel jox ma ci lu tax def ju ñaaw def ju ñaaw baaxul loolu la morse bi di wax ah te xalaatal ni da ngay dee. bis dina ñëw te di nga jàkkaarloo borom bi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc te gëmul nelawul jaawalewul jëfi kenn ak moroomam. kon donc na rafet. Mm-hmm. xam nga ci concept boobu la morceau bi di wax. ci viol bi ñuy def ak xale yi ñuy rey. Cheikh lii album la. yaa album la. kon Cheikh Anta dafay waaj a génne album. boo xamante ni si album solo la carrière solo la. waaw album bi te um, album bi lépp a ngi ci. lépp a ngi ci lépp a ngi ci euh, patch la. lu ñu pàcc la. lu mel ni doxu naat. voilà xoolal gisu yaa ba xam nga yi mu def nii. jël robe bi def ci ay yëf def ci borodé xam nga yaa gis def na ci borodé def ay couleur yoo xam ne xam nga mu mi ngi neex rafet nii macha allah li mu sol nii comme comme kii euh, jus d'orange yooyu bu <laughs> ñu def ay affaire xam nga you neex na quoi <laughs> loolu la album bi ko lool la waaw loolu la quoi loolu la ma kañ la mën a xaar album bi nga xamante ni si Cheikh Anta ma nga tey studio di ko wàcc euh, pour mu jox ko sénégalais yi waaw parce euh, benn morso daal moo ci nekk mbalax muy xale bi day dox doxinu naat te du waaxu benn yoon. dëgg la soo koy xool muy lamsal dafa bari feeling. Mm-hmm. boobu mais yaa daba boobu bëggoon naa nga indaale boobu um, morceau boobu xam naa <laughs> yaa daba yaa dafa dégg bee rek xaw a waaw yëpp uh-huh. uh-huh. noonu la demee donc boobu moo ci nekk comme mbalax moom la ñuy génn single nii sax xam naa mm-hmm. bientôt incha allah fii ak semaine bi clip bi dina génn. Mm-hmm. disponible ñu indi ko fii ci sunu télé. muy Télé Musique Sénégal. mooy télé artiste doo ma bàyyi man yaay maa ne fii. dëgg léegi nag euh, euh, euh, dafa am question boo xamante ni si xam naa ni peut-être sama téléphone daa fay. Mm. te ñekk ci direct bi Facebook bi xam naa ni laaj nañu ko man mu bokkoon ci question yi ma bëggoon a laaj Cheikh Anta sa diggante ak Karone. Mm-hmm. Cheikh Anta bàyyi sabar bàyyi cool bàyyi ndeer bàyyi mm. jëmbe. Mm-hmm. bàyyi tumba ak rumba jublu ci Karone pourquoi le choix de Karone. cim question bi saf na ma waay. ni mu ma neexee ëpp na. ay parce que xam nga Khalil Seck su may joué Karone xol bi day neex. xaw na maa rey ci wayal na bi. waaw xaw nañoo rey xaw dafa toog di ma xiinal ma leen di defal ay yëpp. donc Cajon benn instrument la boo xam ne espagnol yi ñoo ko defar. bon mais lekket la ñu copier. ñoom. li tax ma naan la Sénégal li fi ne rëy na. ay gars yi buñ ko gëstoo ñoom lekket leen copier rek. defar ko ke dañ koy tek ni ñom ñu créer ko muy tok def ci ay timbre et tout mhm. donc ma xamni ni euh, man ni ko xalaté mhm. moy man dama ni karoon warna ci mëna teug sabar teug ci batterie teug ci lepp teug ci mhm. jembe ok man ci sama xalaat loolu ci sa xalaat yow ci bir karon da nga ci xalaat teug ci yow yep ay yefam <laughs> ok ay yef yo xamne day bari lool makoy gas waaw ndax taalaay sama mam man duma baye duma maye waaw du waaye euh, Karom nekk lu Cheikh euh, njëkk indi ci percussionniste sénégalais yi. Mhm. waaye ñu gis nii ñëpp tamit daw nañ topp la roy la ci utiliser bi ngay utiliser Karom Cheikh Anta mhm. waaw waaw loolu moom mooy li ma wax rek sant rek. sant laa koy jëlee rek. Mhm. parce que xam nga bu dee loo def. rek am ku la ci toppandool baax na. waaye euh, jàng it baax na. waaw dem ca ka ko ka ko xam nga ne ko lii lu mu. mu wax la ko. yàqul. kon Cheikh dem avant de utiliser Cheikh Demna, ba jàng ba pare xam la dama dugg ci man ken suis ma ko dama dugg ci internet bi. Uh-huh. bi ma njëkkee gis instrument bi bi gis dama dugg ci internet bi. Uh-huh. xool ko gis ñoom ni ñu koy mu yomb lool ñoom ni ñu koy ndem ko uh-huh. mu yomb ma xam ni fii la kii man ma ko am ci ci def lu doy waar <laughs> damay xool seex mel ko ko mu saxam loolu ma jaaxal tey <laughs> yaa dama waaye nag ndem sénégalais yi ñëpp ñu nga seen biir yi kër ñii ña nga ci seen saal ñii ñu ngi nekk direct ci facebook bi mm. ñu ngi yónnee seen ay bataaxal ñu invité Cheikh Anta Ndiaye mu teg ay percu bi muy soog a nuyoo na ci percu yi bi mu doxalaatee tuuti nuyoo war na ci percu yi waaye ndem émission bi li ñu desee ci ay waxtu bareetul mm. dafay jeel yéen tamit yi nga xamante ni si bëgg ngeen Cheikh Anta ci xeetu instrument yi ñu daal di delluwaat tuuti yaa ak Cheikh ci si teg na ko. mu daal di ciy joué dem sànq dem na Côte d'Ivoire Cheikh ba dëkk ngay jëwaat. fii ci réew mi man de bi bu ma ko mënee. par su ma ci mënee yëngal karoon bi. ci karoon bi. dama ko bëgg. moom nga bëgg. lan kon ayca yaa dama yow fii ah, man dama koy may man dama koy may kii dama koy may kon yaa dama. waaw may ko sama jabar. nga xam nga xalil jabaram ñoo bokk maam. muy Awa Ndiaye. ay ah, yow doo ma bàyyi. kenn du sama compagne Maurice bi gën Riis. dinaa la bëggal ba mu neex te dara du yëngu. te dara du yëngu. ñoo bokk maam sama deret nga. ayca looloo la saf. lii ma lii ma yëngal. xaaral ma waxtaanee. waaw. Aïcha, kon Cheikh waxtaanee la karoon bi tey Cheikh c'est la télé musique Sénégal télé bi nga xamanteni si mo mujjé génn waaye dafa gëna a baax waaye agendar nekk émission bo xamanteni si ni ngeen ko gissé ni rek la Yeen yaakaar naa ni Sénégal yéen a ngi gis ni que heure bu agendar di gëna dem rek ngeen ci gëna giss lo xamanteni si mosu leen koo gis heure bu agendar di dem rek ngeen ni gëna mëna découvrir lan moy concept agendar ñu ngi ñuy Sénégalais yi waaye tamit yeneen télé yi nga xamanteni si hmm? taamu nañu di sétane télé bi pour copier ko ñu nit ñu ngi leen ñuy euh, ndax ndax ndax ndax c'est le Cristiano Ronaldo et Zeyna la carrière désormais mu doon Toumba ak Rumba Mbaye Cheikh yaakaar naa ni moom la ñu doon déglu pour lii nga xamante ni si moom la war a def Yada Ba léegi nag damaa bëgg la tant mhm. que di nuppi nga bégal ñi nga xamante si ñooy sa ay soppe mhm. di la seetaan su ko defee ma ne ma daal di wéyu la ñu daal di jublu nag waaw dama siy bëggal waati mhm. waawoon ndax fi mu toll nii ñu nga toog ku ci mel ni Maam nga toog di seetaan li nga xamante ne si mooy agendar ak sama bàjjan fàttal maa ngi koy mm. nuyu bu baax a baax a baax Daaro. maa ngi mm. koy nuyu waaye ma make up. Mm. maa ngi koy nuyu bu wér a wér a wér. waaw bu ma rek yam ci. Ah. sama mag la ah. sama tippoo la sama xarit la. Ah. faali corombaay kenn du moom kenn du moom ci réew mi ayca man it dama ci bégal ki nga mhm. xamante ni si mooy euh, ajaratu Marème Tall borom mhm. vite clair euh, li nga xamante ni si képp kuy jigéen bëgg nga mu baax ci yow wala bëgg nga mu gaaw ci yow da ngay mhm. daal di daw fee ni si mooy ci euh, Marème Tall borom vite clair yaakaar naa ni saabu ba baax na waaye diw ba tamit baax na waaye ki nga xamante ni si mooy Ibou Gueye moom it ma nga toog duñu seetaan daa Kumba Diop depuis Sweden moom it ma nga toog duñu seetaan waaye Boo Jaw mi nga xamante si ma nga ca Canada Cheikh léegi tudd na ko moom it mu ngi ñuy seetaan à nga xamante ni si moo ngi ci Facebook bi mm-hmm. ndem bala maa jeexal sama nijaay na ma bindal bouquet yi nga xamante ni si képp koo xamante ni si réew ba nga nekk bëgg nga seetaan Tek Musique Sénégal boo ko amee rek mm-hmm. mun nga ñoo seetaan live en direct waaye tamit soppe yi nga xamante ni si danoo nekk ca Pikine muy sama waa koñ waaye tamit xaar ya xaar ya may jaay <laughs> Cheikh damay jaay ay xar te mu ngi ci Pikine boo demee Pikine da ngay dem ca Icotaf boo demee Icotaf Auchan ba fa mu nekk da nga fa fekk daral ba da fa fekk sama frère bu ñu naan Youssou Ndiaye ak Jili Mbacke ñoom ña nga noonu foofu nga xamante ni si mooy ca daral ba lu waaye am rek danaa la jaay xar ndax xar yi xarub géwél la xar muy mbee di octave ca kaw la xar yu way ay harmonie la waaye tamit xar yu suur la yaa daba mbaay waaw kay moo ngi noonu <laughs> kon Cheikh Anta da ñuy bëggal rek ci karoon ndax man lii dolliwaatal tuuti nag sénégalais doy luñ ci karoon bi ñëwaatal ayca jërëjëf kookuma mooy Cheikh Anta yéen yi nga xamante ni si yéen doon ay sénégalais toog ci seeni i biir kër yaakaar naa ne agendar bi ñu def ak Cheikh Anta Ndiaye uute na ak bépp agendar bu fi mës a jaar waaye Cheikh euh, xam naa ni tëgg lu métti la ndax boo ko defee da ngay daal di ñàkk euh, ndeem dafa doon loo xamante ni si épreuve physique la ndax doole moo koy def waaye tamit xam-xam moo koy def Cheikh karoon bi waaw ma gis la ci bu ma la déggee def nga coupé décalé def nga salsa waaye def nga intro morceau Wally Ballago Seck boobu nga xamante ni si moo tudd désolé seex rapidité boobu ak facilité bi lan la lu ko waral yàgg liggéey la ak euh, lu ne ci deret ji rek hmm. ma jalis hmm. tis bi moo def nii ci yow tis gee def nii ci yow léegi Cheikh nanu nanu nanu nanu dellu siwaat ci li nga jakar lol muy mbëng-mbëng gi waaw cheikh ni nga koy defé ci karoon bi waaw nonu nga koy defé ci sabar yi ah mais bien sûr preuve ayca dama bëgg preuve lan nga bëgg ma defal la lo def baax na ah. waaw ayca ñu xool xaar ma gën la defaral li nga xamanteni ni si mooy sa ay micro bu ko defee son bi di gëna neex sénégalais di ko gëna mëna dundu nga daal di doxal ayca Cheikh Anta jaay diko may Sophie Touré ayca waaw mhm. may ko ku la neex hmm diko may Sophie diko mhm. may Adji hmm Euh, ñooñu ay lingeer lañu di samay xarit. mel mhm. Meng di ko may Aïcha Diallo. Mhm. Ami Ndiaw mhm. di ko may suma waa kër yëpp nag. bëgg ñu béggee ko. ndax loolu rek ay dëgg. Ah. fii nga ko bëgg rek. foofu laa ko bëggee. foofu laa ko bëgg ñu dalal fi ki nga xamante ne si mooy Cheikh Anta Ndiaye malgré que heure baa ngi dem waaye waxtu wi xoj nañu xoj goo xamante ne si bëgguñu ko woon yemale fii ndax dañoo bëggoon dem ak yéen ak Cheikh Anta pour ngeen gën mën a découvrir li nga xamante ne si moom la Cheikh Anta def ci wàllu musique ndax yor li nga xamante ne si mooy ay sabar di dëpp sa loxo di la do. waaye tamit bu nu fàtte que ni ki nga xamante ni mooy Cheikh Anta Ndiaye tey dafa ñëw indi spécialité boo xamante ni si raar na nga koy gis ci xeetu percu ndax bu ñu nee percu dañu daan gis li nga xamante ni si mooy galañ moo koy tëgg bu ñu doon wax percu gis li nga xamante ni si mooy ngàddukaay ba ñu daan def lépp cosaan la waaye Cheikh gën koo moderniser tey jël li nga xamante ni si mooy loxo yi ko yàlla mooy di ci tëgg xeet boo xamante ni si ñun musuñu koo gis yaakaar naa ni yéen ñi nga xamante ni si yéen nekk ci seen i biiri kër di seetaan émission bi tudd agendar Cheikh Anta Ndiaye na leen waaye ñu nit ñi nga xamante ne si ñoo nekk fii ci plateau bi muy man Boga Mbaye ak Yadaba Mbaye Cheikh Anta Ndiaye yéem na nañu yéem goo xamante ne si dañu koy ñaanal yàlla la lafal ko cat danu koy ñaanal yàlla may ko wér danu koy ñaanal mu yeggale dañu koy ñaanal lii nga xamante ni si mooy culture bi nga xamante ni si ñun ci réew mi ñun ñoo ko moom suñu borom may ko tan ak fekke sunu may may ko muy sunu borom may ko mu yeggale ajaratu Yadaba Mbaye ndem temps bi xoj nañu ñu daal di tàggoog sénégalais jox leen rendez-vous ak jàmm ak beneen invité fii ci agendar di am mbégte contente rek mm-hmm. di jàkkaarloo bi yéen doon leen bëggal mm-hmm. ci sama invité bi nga xamante ne ànd mm-hmm. yëngal bi uh-huh. ah, ah, uh-huh. gërëm uh, ki nga xamante ni si moo ma solal lu ma ko fàtte benn yoon damaa bëgg sukuraat su ma koy wax ngay ngay ngay bale ngay bale nay bale nay bale waaw nay lii ma sol waaw waaw euh, madame Nia moo ma ko solal 76. 600. ayca ayca yaada ba yaada ba xam naa ne xam naa ne que euh, bëgg ngaa joxe li nga xamante ni si mooy euh, euh, numéro bi dama la koo bëgg defaral sax ba mu gën a baax su ko defee ndéem da nga koy joxe sañ si bi di gën a génn nga ndax man xam naa ni ni ma lay déggee doy na waar doy waar goo xamante ni si yeggaleel ci numéro bi nga xamante ni si moo la solal. 76. 630 72 07. 76 630. 72 72 07. 76 lay jiital. waaw def 630. 72. 07 07. képp uh-huh. koo ko contacté rek sa tabaski laa lay wax. ñu uh-huh. mel nii rek la lay sàjjal. yu mel nii ngay sàjjal ndax dafa tàng. dafa tàng uh-huh. di gërëm rek képp mm-hmm. koo xam ni rek jàkkaarloo woon nga ak TMS di seetaan agenda ñu jox ne rendez-vous ba suba. ayca Cheikh mm-hmm. lan ngay tàggoog sénégalais yi la doon seetaan à travers Télémusque Sénégal. waaw di wax ni kontaan rek kontaan contentement boo xamante ni foo ko natt rek romb na ko uh-huh. ci dalal gi ngeen ma dalal ci suñu télé uh-huh. télé musique moom ñun artistes yi ñoo ko moom uh-huh. uh, di gërëm ñëpp koo xamante ni rek yaa ngi bëgg Cheikh Anta uh, Cheikh Anta di raw di lay jox loxo fa nga uh, gërëm di yàlla balaa maa fàtte sax muy laay la chef laay la chef laay la dafa nekk koo xamante ni dafa jàpp ci samay affaire baax loolu macha allah ak sama gars yi waa studio bële ku ci mën ni Papis Ndiaye Senghane ah ak xaadim mhm. Papa Ndiaye Rambo gars yi daal ku leen juum ak Serigne Bouch mhm. ah, macha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax mhm. ni yal na yàlla def jàmm ci réew mi ah te ñuy moytu wax ju ñaaw rek ndax géwal bu fekkee lu ñaaw da ko war a defar géwal warta yor leen seet daa war a yor puso lu mu ko fekk mu teppee ko muy ñaw ko yi naw ah, xam nga ni loolu moo war géwal <laughs> di wax ni rek waaw nañ ba xaar nag parce que affaire ñëw te Cheikh Anta ñëwee ah dana doy waar ku mel ni Jami Jami Gueye mel ni Jami Gueye Jami Gueye mu ngi a baax ndax naa ni minute ngeen noonu ayca mu ngi noonu c'était émission agendar tey ñu teewal fi ki nga xamante ni si mooy Cheikh Anta Ndiaye di naan bu mag jëm fii nga xamante ni si mooy ci Télémusique Sénégal waaye tamit bu ñu fàtte que ni agendar chaque jour nii lay demee door na semaine bi tey muy lundi mardi suba am nañ beneen invité boo xamante ni si yéeneen yéeneen koy xaar mercredi noonu waaye jeudi bi dañu koy jël jagleel ko nabiyen yi xam naa ni khadim ma nga ciy dox ndax bu ñu nee agendar c'est c'est le rendez-vous des artistes man Boga mbay nak yaakaar naa ni nii ma def ak yeen ma ngi ci doon and ak ki nga xamanteni ci moy wa uno bo démé ci uno ba ci Pikine ñom ñoo def ni nga xamanteni ci tay ñom la fi la génn ci sañ sañse uh-huh. waaye sama sponsor leader momit bëggul ma tuddu turam ba mo def xétu bax bax gi nga xamanteni ci si ñëpp ñu ngi naan ma mbaayee sañse ga kon donc on vous donne rendez-vous à demi soir bala rendez-vous bi bala rendez-vous bi happy birthday to you a major di doomu Jili Djily Danseur di doomu ñaaña happy birthday to you je te la totalité Madior sama doom nga suma jarbaat nga je te la totalité enjoy your day happy birthday à Jolina sama ah, xarit ah, tey la ah, birthday am birthday sama mag la sama xarit la loo dund rek doyul kon nag foofu lañ leen di doxee dig daje ba suba donc on vous donne rendez-vous soir comme chaque soir et, et bonsoir,